Rewmi leen ak jàmm yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo siyaar leen Cheikh Bara nekk ci ay jafe-jafe di wéy di continuer di nekk ci ay jafe-jafe ginnaaw ba nga xamee ne arrêté nañ ko ca fële ca Touba Mbacké ci manifestation yi fekk ko këram daal di koy jàpp yóbbu booba ak léegi nag umpale leen na mi ngi ci ay diiru fan waaye kii di Cheikh Bara dafa amal ab grève de la faim. maanaam Cheikh Bara Ndiaye fii ñuy wax ak yéen ñi daal dafa nekk ci ay problème yu mag a mag a mag a mag a mag ba nga xamee ne sax moom moom di Cheikh Bara Ndiaye dafa crise ndax feebul gu mu feebul ndax ñàkk lekk ndax ma da ngay naqarlu ne daal lan moo waral mu def gi de la faim boobu niñu ko jàppe rek mom moko metti jamono yi ba nga xamé né amal na booba graf de la fin ba nga xamné ci tribunal ba sax mom momé da Cheikh Bara ndjay dafa fa crise mu don lo xamné jaaxal na Sénégalais yu bare bari kon dal fii ñuy wax ak yéen ni Cheikh Bara ndjay mom wér gi yaramam dal di nay soxé lool ginnaw ba nga xamé né diir ay fan dal mi ngi nonu ñu dal di té loolu la némé kon fi ñuy wax ak yéen dal Cheikh Bara Ndiaye dafa crise foofu ci tribunal ba ndax graf de la fin bo xamné ne kay ngi koy wéy di ko amal ndax ngay xam la ne nii ñu ko jàppee daal benn yoon amul benn yoon boo xam ne rek war nañ ko teg loxo ndax moom ma ngay xam la ne daal fii mu nekk nii tant que libéré wuñ ko daal jërëjëf dala fin boobu day woy di ko amal loolu la ñu nemmeeku kon fii ñuy wax ak yéen daal Cheikh Bara Ndiaye moom li ko daal daal dinay metti loolu jaa ngeen jëf mbokk yi